73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa ah, ah, lu ñu mën a wax rek ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ah, peuple senegal bi di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm yaa rabbi ci barka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam may wax rek mooy liñ ñu laajoon yëpp joxe nañ ko ñu ngi bàyyi li nga xam ne mooy monsieur le juge mu def liggéeyam loolu laa amoon pour wax ko salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm dañ fa ñëwoon ci jàmm ak salaam rek ñëw pour yey sénégalais yi ñu ngi ñaan kilifa diine yi nag kilifa aada yi ñu ñaan réew mi am jàmm uh-huh. dossier bi teg ko ci suuf Sénégal jëm ci kanam uh-huh. bu dul dara sonal nañ askan bi yëpp uh-huh. lu em ni ma doomu Mawlana Cheikh Ibrahima nga koy oo ci dossier yoo xam ne ne kenn xamul dossier lan la koy ñaan bi sa Macky Sall moo yor doole ji rek lañ bëgg ñun kilifa yi dossier bi nañ ko teg ci suuf ñu jàll ca kanam ndax suñ doomi réew rek la ñuy rey bu fi xeex amaatee ay du yem bopp borom mhm. kilifa diine yi nag ñi wax ñëpp ne nañ artu ku artu di nga atte mhm. wax ñëpp ne nañ artu mhm. que ça première fois et la dernière fois ñuy bëgg wax ci dossier bu mel nii Baye Mbaye nag tant ñu koy oo ñun danañ ñëw dana ñëw ngir mbokk danañ ñëw ngir kóllëre mm-hmm. doomu Mawlana Cheikh Ibrahima yi du yoon ñu koy oo ci ñàkk fayda yi mm-hmm. du yoon ñu koy oo ci ñàkk fayda yi danañ lëkk na mujj nag ñu koy oo ci kii mm-hmm. te am na loo xam ne nag ba mbéjum kanam la borom moo koy fajal boppam président ma Sall lii xeeñ ni xeeñul neex lii ram xeeñul neex de te lii nag ci sa nguur la xewee te bañ ko bañaat ko mooy lan jëlal dossier bi teg ko ci suuf ñu jëm ci jàmm